dee bu jotee foog nit dee ak noo mën di dee nag dee ñëw na waaye am na dee yoo xam ne dee yu teraanga la comme dee yu xale bii waaye li ci metti lépp li ci gën a métti mooy Sénégal am na réew yu ko óolu am na ay peuple yu ko óolu rawukaay la ci diine. ne rawukaay la ci diine. ne jàngukaay la ci jikko yu kafe. ne ne jàngukaay la ci jikko yu baax. ne utukaayu e, e, ngëneel la. doomi réew yooya gàddaay jëm si fii Sénégal ngir loolu. ngir sàkku yiw. ngir sàkku lu baax. ngir leen dajale. leen lu seen borom. ngir sàkku lu leen jegeel seen borom. kon ñooña lañu war a def yépp def nañ ko. waaye ñi ñu fekk si nag. waaye ñi ñu fekk si nag. ñooñu ana nuñ mel. gouvernement yaa ngi fi. gouvernement mu ngi fi. ana sécurité am. ana sécurité bu muy defal nit ñi. nit ñi fi mu nekk kenn amatul jàmm. kenn amatul jàmm. kenn óolootut ndax sécurité amatut ñu ngi fekk ñii ci seen biir kër di leen rey ana gouvernement ana sécurité ana police ndaxam bu sëriñ daara jiwumee ak taalibeem ñu feeñal njàmbaar feeñal lu nekk jàpp ko yóbbu ci kaso bi ne dañ koy yar dëgg-dëgg loolu yomb na lool xam ngeen ku néew doole néewal ko doole yomb na lool waaye nag ñi nga xam ne ñu ngi xamee seeni ngànnaay di yàqal nit ñi di leen rey di leen fekk ci seen biir kër yi di dajji seen néeg yi ñooñu nag ñoom anañu ana doole yi ñuy wan sëñ daara yi. ana rigueur gi ñuy wan sëriñ daara yi. dara. waaye nag li xew métti na. metti na lool ci Médina. métti na it ci mboolem koo xam ne jullit nga. waaye nag jullit moom du am lu yàlla teg rek. mu nangu ko. ci xol bu gëm yàlla. yalla nañu yalla may lolu ya rabbi ñi di def yi xamuñ lu ñuy yak pour Sénégal ndax bo démé ba aduna bi gis na Sénégal amatu sécurité amatu làquwaay population ba tit nañ gan ñi nañ ne ñooña ñu ngi yakal Sénégal lo mënuñ ko koo defaral. ku amoon alal ne def fii liggéey si. dootu ko defati du ko xóolu ndax sécurité amu fi. te loolu. ku nekk xam na li muy yàq ci économie réew. Sénégal amatul sécurité. touristes yi daan ñëw. dootu ñëwati visiter si. ndax sécurité amu fi. su boba li ñuy yakal Sénégal économiquement. yàlla xam. yàlla xam. ñoom gouvernement bi itam xam nañ. kon nag ñoom ci seen bopp. ñii ñoom la jalgatil. mën di leen di wan mënalu leen ñu dara. lu neex ñu def. ci biir réew mi. ragaluñ ken falawun ken waye bu sëriñ dara bi ciawé ndongom hop ñu ne àdduna tukki droit de l'homme dal di jóg droit d'enfant dal di jóg di ray nit ñek wax yo xamne ñom ci seen bop xamuñ lu muy tekki waye limuy muy tekki nag mooy li ñu wara def mu tekki moy li ñu xew nii ñu war cee def taxawaay boo xam ne ngóor a gi ñuy wane ci sëriñ daara yi ñu wane ko ci ñaawteef yii bu ñu ko deful nag nañu xam ne FBI a ngi fi te ñu ngi fi Amérique ngeen di jëflanteel ndax xam ngeen Amérique amul caaxaan